Assalamualaikum ma ngay nelaw bu ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di am mbégte del siwaat ah, di sant nak sunu borom bu baaxa baax bam ñu mayee ba ñu ak kàtt nak man man ba mëna téwaat teewaat ak yeen ni ñu baaxo di def ak yeen dimanche bu jot juroom ñetti waxtu bu tégalé fanwéri simili ba juroom ñenti waxtu bu tégalé fanwéri simili ko ñu ngi sant ñu ñu bayyi xel fofu ci diwanu bitim rew di nuyu suñu fans club ci UK ka cham suñu broda nuyu nala ñi jël nañ nuyoo bi teg ko ci sa loxo di la wax ne nga nuyu ñëpp am nañ mbégte ci ñoom bu baax waaye di nuyu Basirou Dieng ca Manchester ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaye du ñu fàtte di xoja mbay moom bu yaay ni ku booy ñu ngi lay nuyu Thiam Babel Demba Thiam bu ñu jógee ci kooku ñu nuyu Jabu Sarr foofu ca London di nuyu waa London yëpp ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel waagaan show di nuyu Ibrahima Koli ca Jiboro moom tamit ñu ngi sos waagaan show foofu ca Jiboro nuyu naa la bu baax a baax di nuyu sun fans yooyu nekk ca Neyma Naziru eh, ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm fu waay mënti nekkee rek àddina wërngal këpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ñu nuyu suñu yaay yaa gàmma faal borom baaxal mi faal njëkk yaaram nuyu naa la ak képp ku sant faal di seetaan waagaan show ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu aaw yi ci gi Fane Ndiaye nuyu ne la ki neggee yaayu xadi ñang bu baax baax a baax di la nuyu waaye di nuyu suma mag yi di suma yaay suma xarit su ma mag ami ñang baalo eh, di yaay ci man di mag ci man di xarit ci man di àndandoor di lépp ci man ñang baalo yooyu loo dund doy loo dund rek xeeb naa ko nuyu naa la di la ziar di nuyu suñu yaay saal la ñu naan ko xandaw foofu ca trafic light yaay yi nanti jobaatee seeni nongo caam nuyu naa la di nuyu nanti yi ci boppam madame Sène di leen ñaanal jàmm ak salaam lu bari nday faatu ca Mali du la fàtte nuyu ñu sa borom kër kontaan nañ ci yow saa yu nekk yaa ngi ñu wax mbégte gi nga am ci waa Ganso ñoo la raw jërëjëf di nuyu ñu ngi seetaan ci Ndakaaru Njaay ci biir réew mi ñu ngi lay nuyu bu baax roon nuyu ñu suñu yaay digg naa dafa bëgg show bi be bu waxtu bi jotee dootu def dara day toog di ñu xaar kon yaa booy nuy nañ la di la sargal lu bari tey nag yéen ñu gën a xam ni programme bi di tëddee dina njëkk dem seeti Fa Bakary Tombong Diatta Fabakary Tombong Diatta nag xam ngeen ko xam naa ne moo seen bu ñu ko tuddee rek di ngeen xam jamono bi ci lan lay dox dinañ ko seeti moom it di waxtaan ak moom mu wax ñu ci lan lay dox euh, Killa Is dina ñëw moom artiste la di ndaanaan nekk fi ci biir réew mi waaye jamono bi dégg ngeen xew-xew yi nga xam ne rek dal na ci kawam dinañ ko seeti moom it dem waxtaan ak moom euh, ginnaaw loolu xam naa nag suñu président Adama Barrow mooy mujjee waaye ci biir li ci ne duma leen ko wax kumpa la Waikum fa sos dafa and xorom so xamne kenn duko sappali sa saa yu ngeen ko ñëmi rek day wexaat ñu dem ak break te bu ñu rek yeen ñu gëna xam mu gën fe neex ñu defar ko moo ñu lu fi yaaku ñu defar ko yaaya la bari ala la ko na Eh, albert kortan heddo albakat kortan heddo sumol kortanan heddo albartal tan albartal abbo fonga fonga fo ah. ah. Ah, fonga kaccaɗo ma nin ke fo janni mol ɓetala ko siran o nati siran ñu fon wo mamba sogo soto siran o ni mbasamo ɓe nati Ah. ah di nuyu wala mbare ñu. Ah, yaa hakil sa tabac waaw. alhamdulilah alhamdulilah Albert. Ah, alhamdulilah. Alchi Alchi. alhamdulilah. ah aketan. alhamdulilah betata Alchi. ah naaja naaja ite naaja ite ja ah. waje jan. yaa tam <laughs> wolbula albaade kortoɗo tan adduro alhamdulillah kortoɗo tan alhamdulillah marakay ari kan korton tan alhamdulillah alba kan korton tan yankuba sumol ebide korton tan alba kan alhamdulillah a ñim patewo de soaɓe a janjo aɓena aɓena bamban nan biri ya jammen na tata fo hani kaɓe jamo shada bare hani kabi parti bete atal ah. parti uh, sembo bala hani kabi sembo be so albeli kortan imon yash ibeli kortan albaka doko be nyani kortan dal alhamdulillah arikala ndila fonga kacha do monni ah. mm-hmm. suma wa nga mm. da suma wolof setul wa amna ñu tok ci ginaaw bobu deg na wolof ay degul soose bàkkaar tombon jaata soo gisee moom yàlla dugal ko teg ko si palaas hmm. yàlla moo dogal lool hmm. il faut moom su waxee yow nga jotal moom nit ñi déggulu olof mun na dégg foofu hmm. du dégg waaw ah, voilà mun ayca kon leen rek dakoyo ko parti o ñu nga muta kuule nee na moom parte bi jàpp na ko bu dëgër te muy dëgg al bee ñen tamudale kuu ñun ñëpp dañ ko war a jàpp mu dëgër benn yaaya jamme be jaaxaani kabi nee na bu fi yaaya jamme nekkee ba tey hmm. baabali man sax e sanji mois anin doolu a manqué dili mois anin fula nee 22 twenty years du 22 two days du twenty months du twenty allahu akbar second at bi sakan parti o hani kabi aɓe tama kan ñin parti tiyo ya dada hani kabi abijan nee na bu ngeen gisee parti bi ba léegi mu ngi dund dàq nañ fi borom parti bi waaye parti baa ngi dund ba tey. wallaahi tamit waaw ah, maa ngi ko woote ndax du loolu. Mm-hmm. ndax du dégg. Mm-hmm. Mm-hmm. ma ne ndax du dégg. ale parti yoo mutaku ale ay parti parti lem. nee nañu jàpp parti bi mu dëgër suñu parti la buñ ko jàppee suñu parti la suñ ko bàyyee bàyyi suñu parti. waaw sama dëkk bu kenn jàppee benn ñaar. moolu be findi la moolu be findi la kata parti doo la bari al kakale woo faale. ndax gis ngeen teg ngeen seen boot bu baax am na ñuy génn ci parti bi di yem dem ci yeneen parti waaye ñun ñu fi ne nañ ko jàpp mu dëgër te fulal ko dafa bakar tombo njaata ala le adinte parti ala le parti walla yaaya la saaboo bari alala la fana nene moom fa bagari tombo njaata yàlla ko jox parti bi sababu yaaya la nag waaye yàllaa ko jox parti bi te kaw ci kanam rek mhm. te muy métti APRC e buy neex APRC e ralli ñu men kanale hmm. mbe koɗo jamale bondila layon fenko suɓoɓe jeele diwlin fana bɛ jɛ bɛɛ bɛ bɛɛ bɛ ji bɛɛ b'o kɔ de. alhamdulilah ñu doon jooy ci yaaya. li ñu doon jooy ci yaaya. Ah, ñi ñi mbatu saa ni mbɛ hmm. yaa doolu bɛ ci k'a fɔ ko yaaya dañu ko gagné. Hmm. li ci olof laay wax nga dégg. Hmm. yaaya dañu ko gagné. yaya ko wane dañu ko gagne wo loo dega man fa baka tombo jara mako wa allah ma ko sa ko si ko gay bobu leer na xanaa ko rek ki fon na ne ku fi taxaw yëkkati sa loxo ne dañ ko gagne hmm, ban wàcce leen loxo yi waxal dafa bëggoon jàmm ak salaam ci réew mi waaye yaaya kenn gaañuwul. dafa bëggoon jàmm ak salaam ci réew mi waaye yaaya kenn gaañuwul. moo tax mu toogu bi. yàlla ko yàlla jàmm rek la. birin temps bu mu nekkee fii boobu temps bu nga xamee ne nit yi daal coow bi bari na mu ne nangu na. yéen ko degal sen bop mhm. bu fi ñepp di ciow ñi ne day di day dem ñi ne du dem. dal ko di saytane rek. waaw bëgg jàmm moo tax mu joxe togu bi dem. waaye ku wax ku nek xamne election élection bi jaarul yoon day sàcc carte bi joko kenen keneen waaye yaaya na yalla dem na. waaw mo ngeen yalla gëm ya ñepp xam ngeen election bi jaarul yoon. yalla rek mom mom rek la bëggoon. gëm naa loolu gëm yàlla. nga koy defana ila jamo seta waayi ila diamo bina seela waayi fanan man maa wa dingi di ni mota ya ya wane parti man la ko denka parti su fekkee den ko denka ken den ko ken way ki de wa fi ki wa fi ki lolou loolu baaxul way le di am benn siala li di am benn loolu man ali loolu te parti man ma moom parti yaaya ma jox parti ah APRC ko afa APRC APRC APRC abanta abanta dégg leen tuuti ma waa ñu ngi dem pour def rallye ñu bari de wane ñu EPRC amul xaalis mm. yaaya su fekkee am loolu ngor bu baax mm. du dem mm. ndax carte dañ ko sàcc jaarul yoon yaaya kenn gañuwulu ko moom moo xam ne moo gañee carte waaye soo gisee moom dafa dem moom dafa bëgg a dem mu bàyyi réew mi ak jàmmam képp ko wax nga nga gañee yaaya ma ne maa Papa Bakar Touma Jara ma ne loolu amul amul amal solo de. ko nekk nii nag man fu mu maa ngi préparé naka laa def nekk président su watee jeexee ngeen wateel ma rek ma nekk président. yow yaa nekk président nag. su ma nekk président da ngeen nekk yàppa. <laughs> su ma nekk président da ngay yéen yëpp day soppeeku ay dëmm da ngay nekk yàpp. man maa ko ñaari at lekk lekk la yàpp. EBRC. yàpp bi ñëw na EBRC. EBRC. Jaata. Jaata. EBRC. Jaata EBRC. Jaata moo yor. Babakary Tombong Jaata moo yor. Fabakary Tombong Jatta moo ko yor Fabakary Tombong Jatta moo ko yor Fabakary Tombong Jatta moo ko yor Fabakary Tombong Jatta moo ko yor Fabakary Pendeng Jatta moo ko yor iko ner moo be loorin fere ah jima he alsi alsi salaam aleykum naka waa ka naka de maa ngi si jàmm alhamdulilah sina wona toog waa ko ni toog bi ah mbalal de nit xam nga mitin moo amoon ci kenn moo tax ñu ngi mu wax tooga sira naa feeñe ja alisi alisi sumool naka nga naka nga def alhamdulillah toogal toogal hey ngo hey indil ndox bu sedd gana la am fii bu sedd asa alhamdulillah naa de victor yaa alhamdulillah yaa ka léegi sant yàlla victor yaa da nga ñëw pour daal di nekk CPRC waaw man waxtaan ak yéen waa parti bi dégg nga su ma wax day ko bind si. waaw dama la seetaan si social media bi. Mhm. ñu ne dafa am daal fan yi da nga génn di wax pour àdduna yi dégg la ma ñëwoon nag pour jottali wax ji ndax man maay jottali kati wax ji man maay wax kat bu jógee ci QTV bi di wër àdduna mhm. lépp lu nit di wax emale ko ci biir néeg ma jël wax ja génne ko ci biti sànni ko ci jaww ji àdduna yëpp jot si ma di la wax nag jamono ji yaa ngi live QTV hmm. ma bëgg li nga wax hmm. nga wax ko ci kaw ni mu la ñoree hmm. ndax ñii laa seetaan mun a xam kan mooy Fabakary Tombong Jatta Fabakary Tombong Jatta moom mooy nit boo xam ne yàlla moo ko musal yàlla ko dibal ndax parti bu toll ni APRC e yàlla jël ko jox la ko jox la ko mu nekk di rôle 22 years Yaya Jammeh def lu nekk ci lu baax jógee fi mu dem mu ne Fabakar laa jël mu teg ko foofu alhamdulillah wala wala wala mu ne Allah tentooti wala mu ne Allah tentooti wala mu Gambia benn Allah tentooti saa léegi lu ñu pare mooy ku wax benn ñu wax la fukk ndax APRC warul nekk ko ñu ngi time boobu ñu ngi muñ ba léegi ñaari at kenn waxul dara ci APRC ku wax de ñu noppi léegi nag wax bi noppi bi dafa jeex ku wax dina la tontu Fabakar kuwa waa benn ji nañu waa fukk faal fa aman ko woon wax benn ñu wax fukk wax ñu wax fukk waaw maa la ko wax léegi dal man su ma bëggee waxtaan ak yow dama bëgg nga dal sa mer gi nga meral yeneen parti du mën nga ko meral te man dama bëgg yow ngeen jéem a wécc doxalin Fabakary APRC bi mu doon doxee ñaata at si ginnaaw ba tey benn doxi la xëtër ngeen di defee lu nekk ak xol ani de waxuloo dëgg hmm. Hmm. <laughs> boobu waxuloo dëgg APRC depuis yaaya dem hmm. kenn déggu leen ñu ngi def yar ak ndey teggin rek. Ah, amul xatar amul dara yéen tooñ ñu leen tooñ ci yoon bi yéen demu leen fi mitin bu yàgg rek di ñibbi si xeex ak dëkk boobu noonu. déedéet xeex bi moom ñoom loolu wax la. ñoom ñoo leen tooñ parce que ñoom tooñ la kay. koo xam ne ngeen ngi ba benn place suba ba ngoon togguloo ceeb lekkuloo yàpp nga génn si sa moroom góor di la saaga. léegi na la. léegi yow bëgg a taxawal sa parti bi mu dëgër laajut coow lii. ah toppa si facebook bi fo dem rek Fabakary Tombong Jatta ngay gis mu ngi coow coow coow APRC APRC APRC APRC gis nga Dakar du saf ñaar yoon. ah. hmm iko ako Dakar ako Dakar. Dakar du saf ñaar yoon. Dakar mu ne mu Dakar Odi. Dakar xam ngeen rank rank ah. bisaab ah. ba top ci ron rank muy Dakar ah. xam nga boko ko def si njambaan di macca bam saf nga sandiko boko boo du saf forox xam naa wax bi. xam nga lu ma naa wax bi. waaw daxaar bi mooy saf safaat. ah bi. billaahi wa daxaar bi mooy saf safaat. yaayaa benn yaayam ngee ñëw. fekk temps bu ma nekk na président five years yaay ñëw ma delloo ko eh, nguur. ah yow yow nga nekk président. discipline fekk ma nekk na président ñaari ñaari ñaari ñaari juróomi at. yaay ñëw ma delloo ko nguur bi. APRC moo ruur fii juróomi at yu passé ni alhamdulilah boobu sarax la. waaye juróomi at bi su man may taxaw juróomi at. su jeexee yaay mooy ñëw continuer réew. Yankuba Koli dee leen wax. lu tax dolen doo leen wax. taxaw lan moo tax doo leen wax. taxaw bàyyi force taxaw bàyyi force moo nekk. yéen lan moo tax doo leen wax. taxaw bàyyi force Yankuba du wax. yow doo wax Yankuba Koli dina dina. yow kii mooy Yankuba Colley. ala fo APRC eh, fo eh, faw. xam eh, mhm. ah, nga débar que démb am na dégg kuma dégg fi mu ne dafa génn APRC. kooku lan la mun a comme dafa mel ni dugal poste bu ndaw ci géej gi. nga génn nga sànni mu laa eme la man xam naa eme suma morom la eme su waxee fii suma taxawee mu taxaw eme du wax. Ah, eme suma wax. na eme wax. eme du wax man daaw lu ma ko jëre woon ki EPS moo xam ne ko mm-hmm. oto bu mm-hmm. mu njëkk war a man maa ko jënd jokk ko li ma la bëgg a wax rek Fabakary mooy dem ne kani lay oto pan suma oto laa wàcce jox ko oto ma duga sa kanam eme su ñu demee kani lay suma ginnaaw lay topp ah, ñu bari na ñu ngi ma xee si parti bi waa parti suma parti. am na parti la yow yaa ko sa dër mu my party is our own. Uh-huh. jogale ñu def asalaamaaleykum. Ah, li ma la bëgg a xamal mooy gis nga Gambie si toolu eh, nañ ko. alta alta alta alta alta eh alta alfintina al Gambien si li nga mun. ci sa kurpañ ci sa dóor ñu xam ne xam nga action day wax ah? dégg nga ma ne action day wax wan leen jàkkaarloo ak ñoom nga wan leen doole ji nga am. ban doole. ah kon yow amoo doole danga foog ne dañuy yësan carte di ko sànni ko xam ne dafa yooy. kan moo am ñàkk doole. yow dama bëgg nga wan Gambien si doole gi nga am. li nga ma la wax mooy APRC foofu soo bëggee nga wax ko tey tey tey soo bëggul nga dem. déedéet man loolu ma fi indi. APRC foofu. Ah, man maa ko war a wax waxal soo waxee. APRC kay forever. Ah, ah, jeena waxaate APRC foofu. foofu waxal yow yaa ngi APRC. man Khady Niang. maji APRC 100% sap sap foofu sap sap nekk gaji ki ceeb ah nekk fa gaji nekk fa kecax nekk fa minti banta foofu ah ëpp na nag yow kii moom waxal nekk foofu minti banta nek fa minti banta nekk fa mante Aha. nekk fa nek minti bi nga xam ne boo ko ñemee day sax jinjeer du yow kese man nag suma njaboot Mawala man nag ma wax la loolu ma sa boos mu ngi APRC suma boos Wow. Sahiko. ko na alakona. Sahiko ko nag boos nekk APRC bu jógee ci moom rek dañu dem seeti moom Aïs moom nag naanaan la artiste ci biir réew mi la dëkk waaye fan yii am na lu doy waar lu dal ci kawam ñu dem dinañ ko saytu ñu waxtaan moom mu wax moom nu ko dundee kon ñu dem ak Biré te desiwaat. ñu defar yes bokk ci gétt gi naan ci meew bokk ci gétt gi. yo yo yo yeah man my boss man are you okay my boss man jaay fa jaay yo yeah Boku Chingitigi, Nanchimeumi, Boku Chingitigi. Yeah, man, Boku Chingitigi. Still Nanchimeumi. Boku Chingitigi, Nanchimeumi, Boku Chingitigi. All right, man, yeah. Boku Chingitigi, yes. Who is this boy, man? Yeah, right. Boku Chingitigi, Nanchimeumi, Boku Chingitigi. Boku Chingitigi. Boku Chingitigi, Nanchimeumi, Boku Chingitigi, Nanchimeumi, Boku Chingitigi. Yeah, man. One man soldier. yeah, yeah, brother. Yeah, man. Hey, son, my boy. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, boy. Yeah, yeah, boy. Yeah, yeah, round. My boy. Letter, boy. I just fight. I just forty. Yeah. Man, yeah, all right. Child, boy, creepy boy, I thought maybe I got a stress, boy. I don't know him, boy. Don't know him. Yeah, yes. Yeah, son. I got him. ay ko ba ak am yéen a ngi ko maa ngi fayal naka la man lu ma fii def fii nii So what, what, what, do you, what do you mean by that? Uh, we are officers, we are police officers. Uh, okay. Where is your card? Can we see can we see your bag now? Can I see your card, please? Bro, wax ji dafa bari ndax mën nañoo gis sa bag. Mané ndax mën nga eh, ibbi sa bag ñu xool. Can we see your bag? We are no, suspected. No more nga toj My you are police officer. Please. Look, oh, look, all right. listen, no, listen, no, no, no, listen, hara, hara, listen. Hara, hara. No, no more. <laughs> You touch my body all. also. Mayuma lako. Listen, okay. listen, listen. So lan, lan, lan my problem. What is the problem? Ndax mun nañoo gis sa back. Ndax mun naa gis before you visit my back. problème ngay gis sama baag sama kaat. la la ma ma woo. ma ne la police la fii laay liggéey. ok xanaa bu wax wax wax bi dafa ta ta ta ma gëm. pro ñun fii lañ dëkk a booy booy ma stress waaye ma stress dégg nga ma la ma stress dégg nga ma stress dégg nga ma ma ay ma ne ma waxuma waxuma yow. ñu xool sa baag dama pale. listen hey listen. ay yow damay officers. hey yow mën ngaa saaga yow mën ngaa saaga. hey listen. su ma la ka yow mën ngaa. bag bag yi nii bag bag yi lala lala lala bag bi lala bag bi.

I will kill you. Oh, hey, hey, hey. Listen, listen. Oh, hey, hey, hey. Stop. Hey, hey, hey, hey, listen, hey, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, listen. Hey, hey, juga, juga, juga. Listen. Hey, hey, Take the hey, yellow hey, band. Hey, hey, take it outside. Hey, hey, he must go. He must go. Hey, hey. New Defarco. Nous payons pour New Defarco. Assalamu alaikum. Yeah, alaikum salam. Bro. Um, are you cool? Wow, am I cool? Sorry, why? Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Xanaa yow loo jotee gaay. Boo jëlee ba bugg a booy. Ma si si si si si la comme ñoom. Boo dafa am ñu ma. amee amee si xol dafa am ñu ma amee si xol bu seen sama génnee track boobu wóy yaa yaa jame mais mm. ku bokk si gite gite naan si meew bi ma dama réew bro ma dama réew man mm. ma du ma ko du ma ko dee may kenn da nga ñëw di visite suma baag bi ba pare non sense nga doo ma war sa kaat war si dabe par di ma saaga su daf ma saaga moom moom moom ma saaga ko foofu la yow tamit mënoon nga leen a yombala seen liggéey comme dañ ñëw ne la a ñëw yombala seen seen liggéey yow li ñu tëj ma fi ba ma dee kenn du ma kenn du ma mos a ma wax affaire yaay jàpp boy boy mi ma wax amoon boy kii foog ma wax amoon mi sa président foog ma wax amoon boy te ko baa ngi ginnaaw os boy ñi ngay gën a gaa ngi gën a sonal nañu booy fa war risi booy man man man booy ma leen dem leen dem kil mi man ay doon maañ ku ma saagal ma laa buddi billaay wala tala ku ma saagal ma laa buddi man li ma la bëgg a wax mooy fi la waaw dama leen a ku ma saagal ma laa buddi ba nga tiit ku dof dof lu fii si si si biir biir police police bi dama laa buddi fii ku fi dof dof lu si biir police bi dama laa buddi man ma kila is ma maa ko woo dama laa buddi yéen yéen kan man I don't care you people who are you who are you I don't care you people. Kuma kuma kuma saaga ma laa buddi. bu ne nekk foofu da ko def kene kene son soo leen ko def kene kene ma leen a benn benn da ngeen waaro booy what is that ka dañ ma amee si xol booy man man anaa lan la booy anaa man lan la di waaw léegi doo ma déglu booy dama sona booy yaa jàmbi nii la ma def booy ma génn dëgg bi booy ami nii yes ñëw ma si Gambie booy ñëwaat ñu maa tojo booy what is that booy booy anaa dafa nii ma defaral la soli. mooy garañ ma amee li ma la bëgg a wax mooy danga ma dégluwut. yaa ngi waayal di wax waaye danga war a déglu. yow su fekkee ne ñoom ay officers lañ seen liggéey lañ nekk di def. ñëw nañ fekk la fi nga taxaw ñu ne ñu wal ñu li nekk ci sa biir baag bi ubbil baag bi nga wal leen ko wal leen ne you are not criminal. ok lu tax ma leen wula xanaa xanaa yow mënuloo dem nga ne yow yow ka. su man su fekkee ne dama la wax la man man. office la nga ne ma wan ma suma kaat nga gis ñoom ni ñoo waxee ñu ngi strict nga war a xam ne ñii tamit. man tam ñu gis ne maa ngi strict léegi kan la ci yaramam bi soo na bi yow la nañ ko def kenn kenn waroon nañ ko def kenn kenn suñ ko doon def kenn kenn sax yow nekkuloo sa raid sa raid mooy one by a ma dama leen a coob dama leen a coob def suma a léegi gisuloo dóor lu ko fi jar ah, Gambien nga doomi réew citizen nga ñoom officers lañ seen liggéey lañ nekk di def ñëw nañ ne ubbil sa baag bi ñu seetlu fa nekk bu leen jaay ruteness ubbil baag bi ñu xool suñ gisul luñ laa tee ñu romb la ñu dem seeti sa morom mun na am du yow la ñoo seet sax waaye soo leen jaayee dëgër boppa wala leen man la kii la ku ma dóor dama laa buddi ku lu ko fi jar ñu jàppani dóor la social media bi yëpp di waxtaanee sa affaire ñu la dugal si whatsapp bi la facebook Watson Gambia foo dem ci àdduna bi rek ki la is waxtaane lii lu ko fi waaye yaa moom indi ñu xool wan leen ale lu sàcc su ah waaye ñu laaj la li nga yore nga ne doo ko wane ñu jàppale dóor la dem teg la benn pala addina bi di waxtaanee yéeg say affaire lu ko fi jar ah. mais bi yaa ngi sa raayet waaye nag. su ma génnee ku ma caag dama laa buddi. su ma génnee ku ma caag soo dajee gars yi nga defante woon liñ la dóor su la doytee. dama nga wax gars yi su ma génnee ku ma caag dama. gars yi pare nañ si yow de liñ doon seet gis nañ dama dama laa buddi Bro, bro, bro, bro. déglu ma déedéet déglu ma déglu ma ma wax la ñaari baat waaw dinaa ko xool waaw kokol ko xool waaw mm, mm-hmm. li ma la bëgg a moy ah Yo Gambien nga doomi réew mi nga Yaya Jammeh daf fi kokol. kolos kolos kolos kii dafa feebar. waaw dinaa ko kool waaye dégguma ma wax la li ma la bëgg a wax mooy yow doomi réew mi nga yaaya Jammeh daf fi nekkoon nga dem wéyal ko wéy boo xam ne ñëpp ñu ne jàmbaar nga nga jógee fi dem Sénégal yaaya Jammeh jógee fi nga dellu si waat nit ñi li ñoo expecté yow du lii dew mi réew mi nga da nga war a defar réew mi. la la def. yow su la fi sa taxawalee jox ma lu ma xool lu nekk sa baay wan ko baag bi mu seet li nga def nii du ngóora. nguur gi mooy seet nañ ki la is. xool ko nga wax mu mu bel ma fii dafa dafa dafa sax dama bari ma saa naka nga def yaa ngi si jàmm yow yaa yaayu ki la is waaw dañ ko téye fii ci police bi anti crime ñoom la joteel de. waaye na xamna ni nga ñew dimbalé ko dal mu gëna fi xëñ na ngeen gëna waxtaan sa gam yaay yaayam xëy na mun naa wax lo xamne ne lool loolu xamna dal ñom la jutel te do nañ ko door yu metti febar am waaw te mu ne dal dafa yex yaramam ne dafa ah, febar nga ñew dimbalé ko mu wa fii ah, waaw bijuloo bijuloo la anti crime nekk lo ah, taxi bo dugg gare war ko ne Johnson yi anti crime fan la rek nañ la ko mu ne tapetu waaye dafa febar kay nga dimbalé ko dañ ko dóor kay dóor yu méttee méttee mais dañ ko dóor ba gaañ ko waaw dañ ko defuñ ko kenn wala wala waaw defuñ ko kenn waaw dañ ko sotoo kay waaw waaw defuñ ko kenn kenn baax na yaa ngee ñëw mu ngee ñëw waaw pour pour pour pour waaw baax na am su ma yaa ngee ñëw bel ma su ma génnee dañ ko def wan baa xanaa xam loolu lii nga def nii su ko gars yi déggee doo génn dañ ko uy ma uy ma ki la is wan ba waa waa ki la is li nga lii nga def nii booy man man adoon ah, maay man falew ma man man wan man su ko gars yi déggee yow doo génn fii gis nga jënt bi lañ laan lu ba ok jógal jógal gis nga yow hey hey hey sa lii waaw jógal nga jógal nga dem jógal jógal man man bu ma wax bu bëri hey hey jógal nga dem bu fekkee li mu la fee génnee dina la ñu defar ko. lu fi ñu defar ko. loolu maa ngi maa ngi xaar gars bi ñu defar ko. Eh. amaat nii amaat ñeñeñee amaat suba amaat ngoon léegi nag amaat nag yàlla moo ko teg fi mu nekk. waaw waaw kon mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi nii toog ci saalu honorable Amad Ba euh, di ministre of tourism moom la ñëw seet si pour waxtaan ak moom Mr Ba. Ah, ñëwaat na xam nga man sa affaire daf ma ne noon de man maa la man maa la cukkali moom yow hmm. moom man maa la cukkali yow man saa yu ma xëyee te ñëw ma ci say mbir su ma xëyee di doon jaar loo ma toppee daal ma daal te man mosuma la jóg dërëm waaw waaw li nga fi ñëw yow mosuma la jóg waaye nga topp ma rek seet hmm. ma ma ñàpp rek ne bañ ma bàyyi lan la man sa affaire yow de yàlla naay def jàmma bis bu ma defee musiba keroog at yii kon nga yàqu ne awagee man kay kam naa ko waaw waaw ndax da xëy rek nekk koo xam ne da nga taxaw suma di ma xaar ma génne xam nga réew mi kuy liggéey ak kuy nelaw ak kuy kuy junkoo nit ñi mënuñ leen a xàmmee kon yëg daal dëkk baa ngi toj yow ma yëg li président Baro def jeex na yow yaay wax ci réew mi <laughs> yow kuy liggéeykat ne ci nguuri Baro rek mu ngi jaar ki say tànk pour roy la naka la ko xale yi waxee ko mu ne kul toppal fële waaw waaw ku mu ne kul na le Baro bii de kool bi maa ci ne ah, nu mbaɗɗa jontaat nani waaw dégg dégg waaw dégg la takawal nii ba ma pare ba ah. waxtaan kaalis lay wut léegi noo non kaara dinaa ko non kaalis lay wut dinaa ko wax kii suma gewel la hmm. kii suma gewel la xam naa ko yaa ngi dégg baro dafa xam ne am na ñoo xam ne tey bu ñu sañoon dakka nañ ma ci nguur gi bu yàgg. waaw bara daf la bett wala bettu la wala bi mu ñëw nga ko. baro ko boo ko maa rey nga naan ma bette. yow eh. ba dama li mu def def ma dem ma om sax. waaye bettu la bi mu ñëw ndax am na ñu fi ñoo xam ne bi mu leen dàkkee. Hmm. dañoo jékki-jékki ñu ne Amath Ba moo ci tegu man sax déggoo naa ko ndax Amath Ba topp na ci. waaw man sax déggoo naa ko nit bu fekkee da nga yaakaar yàlla yàlla rek nga yaakaar yàlla yàlla wàllu mhm. waaye jekki-jekki ñu ne amaat dinañ ko takk amaat fi mu nekk munu ko amaat nii amaat ñeñeñee amaat suba amaat ngoon léegi nag amaat nag yàlla moo ko teg fi mu nekk président bi léegi sama kol ak kolam nii sama kol bi dafa jël kolam bi rek ne ko ñàpp ah kon de téye na ko ne kii wax père ministre yi mu gën yi ko gën a neex man ci laa bokk ah, firnde bi barki Dembo Njaay mu ñëw rek toog a toog rek attaqué ñëw rek dugg biir ci biir yi rek di dugg di dugg ci hôtel yi di xool Hmm? xam nga loolu bu ko defee amal loolu succès bu rëy la succès bu ngan ak lu rëy li mu wax ci yow dégg nga ko maa ko dégg dégg naa nga nekk ci biir tubaab bi bara du def nga naan ni sa mbaggam mi di doxee nii ma ne ah. da nga foog ne noonu rek laa doon def ah. sama yi dafa mujj gudd ba jaaxal ma ah. ndax ñu kontaan déedéet xam nga pël bu kontaan ni yi day gën a gudd waaw waaw pël boo gis mu kontaan nopp yi day takaw man dama jëkki-jëkki rek sama nopp yi takaw ndax baro nekk xam nga ne ku toll ni président hmm. ñëpp a toog sa noon yi taxaw sa sa sa soppe yi toog mu naan mm baax diwa mën a liggéey diwa xam liggéeyam lii moo tax ma teg ko ci poste bi lii moo tax am jom liggéeyam bi dox na wax oh, dëgg yàlla dinaa kontaan waaw waaw dinaa kontaan boo ko may sigiram sigiram xew ci jamono sigiram si xam nga ñun politique xew ci jamono sigiram sigiram sigiram sigiram sigiram ay sigiram amaat kew si sigiram sigiram baroo kew si jamono sigiram sigiram eh, eh, sigiram wallaay dëgg la baaxul la gii de ma boog la eh, eh jabaal waaw waaw sawooni wata wayande mbiɗa salmina njoolam goɗejo o wiyaman ba wawaw bapulo eñoawa ndeysan njoola yaade ko ɓe ko yaade mbiɗa salmina njoolam goɗejo o wiyaman ba ndeysan bapulo voilà oh. il faut jombaanima oh, bul jooy mi saba bapullo mi saba bu def loolu affaire bi soo baree noonu nit soo baree noonu bu la yàlla tàccoo nga fecc. a féete gaa yi kaw rek. sa xol sa xol dafay neex. la yàlla xam na ne nguur gi mosuma gëm ni dinaa ci am ñaari weer. ndax ay noonu. moo tax ma ne la toogu bi bàppul. ñaari weer toogu bi bàppul. wala élection buy ñëw yaay toog. baro nag yàlla dogal na. Hmm. li ma dénk dafa fekk ma man ko. Hmm. ndax dañu ne booy jox ñu jox ko li mu xam. Hmm. affaire yi moom wax jël yàlla dogal na kam. bàppul. falee fan yii nii yow seet si la indil la succès bi xanaa léegi doo xëccoo moom nguur gi pour nekk président. de loolu moom defal ndànk ci ah. ci kanam lay doon wala ñaar fukki at wala fanweeri at ak juróom mun na dem sax ba juróom ñett fukki at. waaye euh, bis moom dinaa toog ci toogu. loolu yàgg naa ko li mu bëgg laati moom moom ngay puus. teg sa toogu samp sa ndënd wala dangay bàyyi ba mu. déet moom du ma ko puus. Ah. moom kay fekk mu ngee soxla toogu bi. Ah. ma aw ma ci soxla. Ah, bu demee ba jóg taxaw nag yëkkati ay loxoom. Mhm. ma jéem a rocc toogu bi na toog ci. waaw waaye fekk mu ngi toog. Mm. man aw ma ci soxla. man baro bu toogee dafa mel ni maa toog. Amar Ba gor nga. baro ba sama ngor gi yàgg naa ci. man gor sama ngor gi yàgg naa ci. tey si kanam mu ndaal. ngor gi yàgg naa ci nit ñi ñoo ma wut kel kay xam ne amaat gor la boo waxee ñu ne amaat hmm. du ndax saay bu ñu defaat sànni carte ba pare hmm. man maa njëkk a kay dem ci yaaya jàmm da fekk ko ci da fekk ko ci da fekk ko ci waaw waaw ndéego ko ci a def lu baax ñu ngi fi fees dell hmm. ku mel ne amaat ba daanaka wàllu yu la sàmbay mayaane sa baat bi de bu amoon bës dina kaw a neex. waaye baat bi dafa sew kenn du jël sambay mbayaan xale ba ca cuucuur. Ah. ku fa ca lekk buur ga sarga ca lañ lay xaar. bilaay kenn du yow yaa ngi naan. moo ñu ne ko Ahmed. abe biyaw la. kenn du ko dindi. amat ndeysaan. abe biyaw la. kenn du ko dindi. amat. abe biyaw la. kenn du ko dindi. amat. nga ne. abe biyaw la. kenn du ko dindi. amat. nga ne. abe biyaw la. kenn du ko dindi. amat. lii la yàlla dogal. waaw yal na la yàlla sàmm. amiin da nga ràgg nag waaye yàlla da nga am yaram. léegi li ma bëgg non dinaa ko jox xaalis tey dama yoru dara dara li ma yoru yëpp jox naa ko baro jëndale naa ko baro diri. baro naan kat diri si bu mag waaw jërëjëf. ah bu ma seesee na nga ko teral tey borom li ma yoroon démb yëpp dama ko koo jëndalee diriñ mu naan lépp moom déedéet borom diriñ rek la bugg ci àdduna ah. moo tax li ma yoroon lépp laa ko jëndalee diriñ xam nga démb nu mu def hmm. bi mu ñëwee attaqué de fi nga xam ne mooy Man's Beach xam nga foofu laa nekkoon hmm, hmm. mu door Man's Beach affaire bi neex mu fekk fa tubaab yu konk tubaab yu ñuul tubaab yi tubaab yu wert fekk na fa sax tubaab yu net fekk na fa façon tubaab bu nekk tubaab boo xam ne sax dafa ñuul waaye tubaab la fekk na ko fa façon keeti tubaab yëpp ah, jaamaani def nañ seen délégation ñëw waaye bokkul ak jaamaani yéen yi nga xam ne yow da nga ne baro ngi waaj a nga oo tubaab déedéet ñoom ñoo ñëwal seen bopp baro tàgguwul kenn ah. yow bu leen yàq xeli ñi déedéet bu yàq xeli nit ñi boo waxee day mel ni affaire complot la non du complot dama lay laaj rek ñeneenti hôtel yi mu dem yëpp fu ci dem day fekk tubaab yi ñu ngi fekk delle dafay dafay yaakaar mel ni màggal gu tas bara na kontaan ci loolu moo tax man du ma gaaw a folleeku de mhm. fi mu ne nii mhm. ñi doon wax léegi tey mu dem léegi tey bara dakk nii nga doon doxee léegi nooy doxee ay yow léegi kay nu ma neex laay doxee xam nga Paul moom bu bu Paul moom bu kontaanee moom foog màgg bi yëngatu rek ah, waaw waaw konta bu kontaanee moom nii rek waaye nag dem bu ma yoroon jaas bi dem ba caw ko ko balam lay caw jaas bu ko tey gi nga caw ko jaas pal bu kontaane day caw jaas bu ma yoroon jaas rek caw ko waaw waaw ndax dem ba kontaan naa ci moom kontaan boo xam mhm. yàlla rek a ko xam Di ngi lay gërëm dina sant dégg léegi nag xam nga xaalis bi génnagul waaye weer bi su dee lu for dinaa la si compal xaalis pour la pour jéem si bañ a ah, yàq suma man sax eh mana, ne ma wax leen gaa ñu lal basang ñu julli takkusaan amat ba ma ngay julli ji eh, waaye bopp la jéeri soo julee nga ñaanal ñu bu ko defee rek li ñu def rek mooy dañu dem rek seeti ko suñu président Adama Barrow waxtaan ak moom moom tamit <laughs> li nga xamante ne rek mooy xew-xew gi réew mi di doxee fan yi amoon na gan gan gu màgg ñu tere ko teraanga gu àdduna yëpp di wax moom itam dinañ ko seeti ñu waxtaan ak moom kon ñu dem dellu siwaat ginnaaw rek bi man maa dugalaat Gambia ak Commonwealth Gambia soo xam ne loolu léegi nag Commonwealth bi nga xam léegi su tubaab yi ñoo ko yële surtout England ci boppam léegi moo taxoon nag mu ñëw pour ndokkee ñu ci loolu waaw bu ko defee rek monsieur président ñu ngi laa nuyu ngir maane gu amut àppa tey nag euh, Youth Journalist Association ñoo fi teew bëgg a ñëw am laaj ci ak tontu bu ñu xam ne nañ ko seq ñun ak yow ñu bàyyi la nga ubbi sa jotaay su ko ñu dugal suñu laaj. alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin yal na ñu yàlla boole dimbale. sama ñu aar ñu alhamdulilah dem gan gi ñëw na ci jàmm delluwaat ci jàmm ma bëggoon na comme tey yéen a moom jotaay bi. ba bëggoon tuuti rek ngeen dimbale ma tuuti rek ngeen may ma ma wax ci tey ni nga xam ne noonu laa noonu laa ñëwee. Mm-hmm. pour xam ne ngeen wan ne dama kontaan. Mm-hmm. Euh, gis nga nectar bi bi ma njëkkee tukki bi ma yeggee moom rek laa jënd indi ko tey laa ko doog a génne kon xam ngeen ne tey kontaan na. Mm-hmm. nectar bi du nectar caakaan mun na jënd oto. nectar bi ni ngeen ko gisee nii. mun nañ ci jënd mun ngeen ci jënd mun nañ jënd oto. yow mën nga ci dund ba dee kon xam nga ni dund tey bi nit tey caaxaan kon nañu sant yàlla ci loolu gan gi nag ñu ngi koy gërëmee réew mi yëpp ngeen binda loolu di wax ne balaa ngeen ñëw ma def kàddu ngër mande ci réew mi képp koo xam ne jàpp nga ci gan gi euh, ndax bi ci njëkk mooy dafa am maire yoo xam ne association maire bëgg bëgg réew mi nekk foofu ca Banjul ñoo toggoon cuuraay gerte bu bari indil ko suma gan gi gan gi nee na kontaan ndax cuuraay gerte bi togg nañ ko ba mu ñor xam nga cuuraay gerte boo ko toggee ba mu ñor boo ko suukaree rek mu neex kenn mun na ci lekk ku ne mun na ci lekk waaye cuuraay gerte boo xam ne suukaruloo ko te li ko toggee ñoru du saf gerte moo tax mairie maa ngi leen di gërëm di leen sant gis naa fii waa ñoomi indi nañu fi gerte kaaraar gu bëri ñoom it jox ko suma gan gi maa ngi leen di gërëm bu faat di leen sant waa bari bi tamit gis naa leen ñoom itamit indi nañ fi gerte indi nañu dugub indi nañu mbokk am na ñoo xam ne sax dañuy togg laax laalu indi ko xam naa ne ay bambara lañu ñoom it maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di gërëm ñi nga xam ne togg nañu mbaxal am na ñoo xam ne togg nañu mbaxal mbaxal indi nañu mbaxal indi nañu ko jox ko gan gi waaw mbaxal togg nañu mbaxal am na ñoo xam ne togg nañu cere cere ak mbuum cere ak mbuum cere ak eh, taalaale am na ñoo xam ne rey nañ seen ganaar tamit indi nañ ko ganaar yi tamit bi ñu ko toggee togg nañu ko ak diw ba mu saf ñoom itamit maa ngi gis naa seen seen taxawaay rafet na am na ñu dem ca marché bi indi nañu ay silipaas jënd nañu ay silipaas indi ko ñii def nañu seen dawaar na xam nañu am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla fexe nañu ba jënd ay silipaas indi ko jox ko suma gani yi tubaab loolu lépp maa ngi leen ci gërëm di leen ci sant maa ngi gërëm ñi nga xam ne tamit indi nañu fii lii naan la nii kobalak am na ñoo xam ne tamit indi nañu suma lakk yi kobalak indi nañu kobalak am na ñoo xam ne indi nañu tamit nii nettatu la wala nettatu a géej gu forox ñoom ñëpp indi nañu gan gi loolu daal laa leen waxoon ne moom laay wax euh, di sant réew mi yëpp di leen gërëm di kontaan si ñoom yóbbu nañ ko ci hôtel war nañ ko li nga xam ne mooy suñu kolco defal nañu ko suñu aada ak suñu cosaan ndax gan gi dafa foor ci man gan gi ku yaakaar ne foorul ndax nga sa bopp kon réew mi yëpp maa ngi leen di kont maa ngi leen di gërëm di leen sant kooraawaal nañ ko defal nañ ko mbalak bala fond dégg nga wayal nañ ko yeelaa yooyu yëpp defal nañ ko fii ci réew mi defal nañu ko yeelaa wayal nañu ko yeelaa eh, taggal nañu ko balafon ba pare war nañu ko aada ak cosaan fii ci réew mi loolu def nañ ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf su ko defee ñu bàyyi ko mu ubbi jotaay bi sa toon laajte bi. Euh, ñu ngi wax si wàllu xibaar ñooy laajte euh, gan bi <laughs> est-ce que ñëw ndax gan tàcc ko teeloo da cee baax <coughs> da gis ngeen gan bi nga am dafa rëy. kan gu rëy la dina ah, maa ngi lay gërëm di la sant ci ci li nga noonu ndax man génnoon naa fi xawoon na sax mer ndax mi nga xam ne gan gi nañu ko xaw a sàggane waaye mun naa la wax di réew mi yëpp a génn. Mm-hmm. réew mi yëpp a génn amul journaliste journaliste yëpp a génn nañu amul tamit koo xam ne siti sin la boo xam ne taxawul suma ginnaaw wan ma ne ma gan bi kontaan nañ gan bi ci boppam bi tamit kontaan na ci réew mi bu baax waaw loolu war laa waxoon dinaa ko leeral leeral naa ko waaw ñu laa taskati xibaar movement lu ma laajte gan bi mooy bu mu ñëwee si réew mi fii ban bénéfice la am ak lan la sigee réew mi ba ñi ñu si coobee mu ne si am bénéfice yow taskati xibaar movement yéen xanaa yéen rek nekkuleen ci dëkk mosuma leen gis suma daje suma mbooloo mosuma leen gis ci dara xewee lan mooy seen problème wala da ngeen bëgg a nekk suma noonu hmm? di nga ko laajte bu garaaw bi mu laajte mu ne ndax gan gi ban bénéfice la am dinaa la ko wax kontaan naa trop ci sa làcc bi waaye xale nga bëggoon rek nga nga bàyyi xel ci loolu bu baax euh, gan gi bénéfice bi mu am ci réew mi bari ndax bi ñu génnee Commonwealth man maa dugalaat Gambie ak Commonwealth Gambie si yëpp xam nañ loolu léegi nag Commonwealth bi nga xamee ne dugal nañ ko dugal nañ ko dugal nañ ci ba léegi te tubaab yi ñoo ko yilif surtout England ci boppam léegi moo taxoon na mu ñëw pour ndokkeen ñu ci loolu wax dëgg yàlla nee na kontaan na ci ndax nit bu la defalee taraanga da ngay dokkeel ndax bu fekkee colère gu doxoon seen diggante la jékki-jékki colère gi dagg dem ba mu yàgg colère gi ñëwaat war na dem sargal la sargal la ñëwoon pour def ma wax na ma nag yu baax yoo xam ne su ma ko defee su ma ci toppee réew mi dina dox muy wàllu mbay mi agriculture waaye tamit wàllu tourisme bi nee na bi dama ci war a takaw te incha allah dinañ ci takaw kon bénéfice bi bari na munuy wax lépp waaye dama koy tënk rek jërëjëf waaw ah, monsieur président mm-hmm. ñun la wa kiw rajo mhm. wa ñu bëggoon rek nga léral ñu gan gi ñëwam bi ci biir réew mi ndax pour focus of Africa moko ko ñor motax mu ñëw fi wala spécial la pour ñëw bi ak bi ngay ak moom ba mu ne la ne dina ñëw dina teg tànkam gam fii ban yëg-yëg nga am ci ci loolu dëgg la jërëjëf maa ngi kontaan ci yow ndax laaj bi am na solo gan bi bi yàlla dogalee ñu wax ndax man demoon naa foofu moom ñëwoon na moom ñëwutoon waaye man demoon na commonwealth bi li tax ma dellu ci man xam naa ko ñii dañ am njëriñ ndax bi ñu yëlifee bañ bi ñu yëlifee tuñu sax waaye dañuy jëriñ kon li gën mooy ku amul wéeru waaye dangay nekk bu loolu moo tax waaye bi ma ne damay ñëw sargal si la la kontaan naa trop yaakaaroon naa ne du nekk ci jamono yi sax waaye yàlla dogal na mu nekk ci jamono yi moo tax ngan gi kontaan naa ci gisuloo tey ni ma solo nee naa la euh, nektaay bi mënu ma ko mënu mosuma ko génne suma àdduna tey laa ko doog a génne nektaay bi billaay wallaay tallaay tey laa ko doog a génne te nektaay bi bu ma la waxoon ñaata laa ko jënde ci yàlla ndax nektaay bi mun naa la wax ne mun na dundal doomu a ñaari doomu aadama fi ñu juddoo bi fi ñu dee mun na jënd ñaari camion nektaay bi mun na jënd ñaari camion mun na jël départ waaw jërëjëf kontaan naa ci laaj euh, asalaamaaleykum Mr President waaleykum salaam. maa laa nuyu. Mm-hmm. ñu ngi lay ah, laaj bi ma bëgg a laaj mooy. Mm-hmm. Ah, jamono ci ginnaaw nguuri Gambia dañ nekkoon Commonwealth. Mm-hmm. suñ ma président Yaya Jammeh bu fi jógee. Ah, génn Commonwealth. yow suñ président Adama bariw jamono bi nga toogee lan nga wax ñoom ñi fi ñëwoon ban kàddu nga leen jox bañ mun a mun a góom kàddu googu ñëw Gambie pour delluwaat Commonwealth amuñ ci loolu ñu yëkkatiwaat mbooloo mi takku. ñu ñëw ci biir réew mi pour feddali colère gi tëccu leen soxna si làcc bi réew mi mën na cee doge doge ba faw mën na cee doge baax ba faw làcc bi xam nga commonwealth dugga ci mooy aar sa bopp moo tax bi mu ñëwee bi ma nee leen damay dugg commonwealth ndax xam naa li bi ñu ci génnee li ñu dal moo tax bi ñu ci duggee bi ñu ci samba tooy ci képp xam nañ ne suñu jàmm la waaye nee naa ko na seen kel dal ndax génn dugg nañ ci dootuñ ci génn ndax démocratie bi man maa ko dugal ci réew mi waaye dama koy yokk ndax keneen kuy ñëw fi ma commencé fi ma yem foofu lay commencé ndax seeni i dooma fi nekk seeni i ak seen i jarbaat kenn buggul yàq réew mi moo tax nag ma ni démocratie bi nañu ko dundal fépp fu ñu génnoon foo xam ne dafa ñu jokkale ak réew yi di duggaat fa loolu nag laay bëgg di di di di jël yi daggoon di ko fas di ko takk di jël yi daggoon di ko takk bis bu ñu ko takkalee ak réew bi yëpp lépp dox loolu mooy loolu mooy tontu bi. kontaan beneen laaj bi mooy euh, ñu bari fii ci biir réew mi soo waxee Commonwealth xam nga am na benn bés boo xam ne jagleel nañ ko xale yiy jàng ñu ne a Commonwealth day. yow kañ nga a dégg Commonwealth day. waaw waaw xam nga yu mel noonu am na waaye am na maire yoo ne xamuñ luy Commonwealth. soo soo waxee loolu dañuy wax ne ah teel a Commonwealth day dama bëgg nga leeral askan wi Commonwealth njëriñ lu mu am ba tax yow nga dem waxaata ñoom bañ dellu si bañ dugaat Commonwealth. Commonwealth mooy boo moomee sa bopp war ngaa mun a am waxtaan ak àdduna bi maanaam wéeruwaay daal mun ngaa wéeruwaay daal lépp loo bëgg ci àdduna mu yomba la boo fa génnee nag mooy boo doon boo doon rayante it bu ci yoonu kenn nekk hmm. commonwealth daal mu ngi mel ni nga nekk ci palaas ne bu ma nit buñ may rey bu ma kenn faale faale wu ma kenn hmm. ku taxaw ne faale wu ma kenn nag ñëpp mën nañoo taxaw ne faale wuñ la waaye boo taxawee ne jox naa leen suma bopp kenn du fekk la doon fekk fi nga toog di la dóor beneen laaj bu ma am mooy euh, dañ gis ne balaa gan gi doon ñëw ku la xamoon yow Adama Barrow ci solin gi nga doon solo xaftaan nga daan sol bañ jël sa xaftaan gi tuddee ko tur ñu gis ne gan gi dafa war a ñëw Gambie nga ceeñ solin ndax tolluwaaye gan gi la wala gan gi ci boppam moo war a colin gi alhamdulilah loolu tolluwaaye gan gi la gan gee màgg moo tax ma màggal ko mm. moo tax ni ma solo wax naa leen ko nektaay bi ni ma ko takkee xanaa jombi ngeen mm. xam nga ni rafet na moo tax nag loolu laa moo tax gan ji laa doon màggal rek waaye du dara xam naa buñ ci jógee kenn xamu kañ laa koy soxlati waaw ñu ñu wax ne dañ dégg ci sa discours nga wax ne euh, nettaay bi nga takk nii dafa seer ba boo ko doon xayma ni nga ko jëndee mun na dundal nit bu dundee bu juddoo ba ne muy dee loolu mun na ko dundal ñaari nit ñaari nit ak ñaari camion ak ñaari camion waaw léegi ma bëggoon a xam ñu bari ñu ngi kaas ci biir ne lii rek dafa seer te xaalis réew mi nga jël jëndee ko mun nañ am leeral ndax sa xaalis wala xaalisu nguur gi bëgguma tuuta réew mi sama xaalis la mm. waaye bëgguma tuuta réew mi soo gisee ma jand ko sama poos mm. xaar ba nekk président doo koo takk nga xam ne bëgg naa réew mi àgg ci benn niveau benn kawe kawe bi ñu fonk ko daal. bëgg réew mi rek moo tax ma def ko du leneen. Mm. jërëjëf. waaw ah, beneen laaj bi ma am mooy. waaw du man may laajte. Ah, man maa ngi waxee dafa yoo xam ne askan gi lay laaj boo ma toppee ba mu seet ma lii la de. Mm-hmm. naa la ko. kaddu askan bi moom mu fi tax a toog <laughs> eh, li ma bugg a laajte mooy man maa fi toogal waa QTV di seen waxkat ñu bari ñu ma yónnee ne naa la laaj. Eh, biir bi dañ gisoon jamono ci ginnaaw dafa rëyoon taay ñu gis ne dafa rës ñuy laajte ndax train la. wala da nga wàññi lekk. maa ngi tëral sax ga waaye tamit wax ju bëri ji ci la. Hmm. wax jigu sax garab ba la waxuma la ak nit. bu wax ji bëri bu yàggee dinaa peer ba mel ni bant bu yàggee suma suma bodyguard bi sax moo may ëpp. Hmm. wax baaxut. Hmm. waaye wax baro baro baro baro fi mu ne dem naa dem dem ba ñi sant baro yëpp moom kenn moo ci des. ñëpp dee nañ. wax baaxut. <laughs> su ma laajtee bu mujjee bi ma am mooy dañ gis fan yi nga génn ànd ak euh, ministre of tourism Amat Ba dox ànd ak moom ci biir dëkk bi di seet hôtel yi ñu bëggoon xam lan nga ci jublu waaw dama doon xool xam nga nit mm-hmm. boo boo boo jiite dara da leen di bett di ndax mu ngi dox wala doxut billaay ama tàgguwuma ko sax mm-hmm. dama jëkki-jëkki rek dem ci hôtel bi ñeneenti hôtel yi ma jot a dem yëpp suma xel suma xool sedd na suma xel dal na te tàgguwuma ko bu ma ko taggoon ma ne def ko préparé moo tax tàgguwuma ko. lan ngay dénk waa réew mi maa ngi sant amaat Ba di ko gërëm. Mm. ci liggéeyam bu rafet ci réew mi na ñëpp def ni moom. looy dénk waa réew mi sa kàddu réew waa réew mi li ma leen di dénk mooy réew mi suñu réew la bu baaxee ñun la baaxal. Mm. bu yàqoo ñun la yàqul wasalaam. Mr President ñuy sàkku nga taxaw benn one minute ñu ne taalu ak yow. waaw loolu mën naa nekk. kaay leen nii ngeen taxaw ngeen photo woo man ndax ndax dafay nekk euh, euh, ko kaay. wanda ndax soo mënoon di def ay pause dinañu neex trop jërëjëf gini, oke jadi ok jërëjëf na yàlla def ko defee mbokk yi ñuy seetaan tey lii moo nekkoon Wagan Show ñu am mbégte nag bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi nga xam ne rek yéen a ko seetaan waa programme bi Wagan Show bi ñuy nuyu bu baax di sargal suñu papa ma Mor Ñang foofu ca Kawur di nuyu waa Kawur mbaam Mbaye Ñang eh, fi ci Bakaw ñu ngi koy nuyu Xadi Ñang famille groupe bi yëpp di leen fàttali rek ne Baye Zal moo ma ñawal ñaw jasneer bu rafet bi def ko dagit bu rafet bi mu nga ca boo Mbohol garage ci Latrikunda bu loolu weesoo tam ñu dem ci Mohamed saa yu nekk fële ci Hydra Plaza Gay shop moom moo may jox daal yi waxtu bu nekk ndombaam bi di 3304 934 kon seeti leen Mohamed lii ci daal baag poos ceen takkaay yow mi nga xamante ne yow la ñuy takk war ñu di la ngénte boo duggee foofu loo bëgg rek di nga ko fa fekk kon nag ñu ngi nuyu bu baax Mariama suñu make-up artist bi di leen sant di leen gërëm bu baax di leen wax jërë ngeen jëf sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi ji bu yewoo samar yi